day traité lu bari ci wàllu jaamu yàlla ci lu aju ci jullit bi comme niñ ko defee woon ci ci jotaay yi jiitu tey fas yéene nañoo ñëw ànd ak yéen yeggale suñu leçon yi nga xamante ni dooroon nañ ko waxoon na la ci leson bi passé ne jullit boo xësee ba majeur chariatul islaamiya tere na la ngay tardé julli julli juróom noo mën a def ak ci lu mu la mën a fekk situation bu la mën a fekk nee na na nga góorgóorlu ba di ko matal ndax kat julli da loo xamante ni lu foor la mooy jaamu yàlla ginnaaw ñaari baatu seede yi ngay tudd booy booy dugg ci biir islaam mooy jaamu yàlla bi gën a am solo ci diine islaam ndax boroom subhanahu wa taala nee na julli bu ngeen koy def dee leen ko def ci waxtu julli boo leen koy def dee leen ko def ci waxtu ndax jaamu yàlla la boo xamante ni mboolem jaamu yàlla yi ba ko yàlla di wàcce dafa woo jibril mu ñëw mu dee ko wax ko jibril ñëw ci sang bi wax ko li mu koy wax waaye julli ba ko borom bi di santaane dafa yónni jibril mu jëli sang bi sallallahu alayhi wa mu indi ko mu recevoir ko kaw asamaanu juróom-ñaar mu jox ko ko kon loolu moo lay wan ni kat julli lu am solo la moo tax borom bi na inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquuta julli daal lu ñu utal waxtu la kon nañ koy fonk lu ñu mën nee na tamit kallax bokk na ci liñ koy dénk na fexe buy am ay àndandoo nay am àndandoo yoo xamante ni àndandoo yu baax la yu gërëm lu yu lislaam gërëm ndax waxkat bi day wax ni wax ma sa àndandoo wala wax ma sa xarit ma wax la ki nga doon tubaab bi di wax wax ma ki ngay fréquenté ma wax la yaay kan ba tax na jullit bi du n'importe kii lay àndal du n'importe kii lay fréquenteel booy fréquenté da ut fréquentation bu baax waaye ñoo xamante ni kat seeni image wala ñoo xamante ni seeni jëw ci ñoom nekk na lu rafet ku ne xam na ni mbokk yi jamono bii ñu toll doy na waar rey bi bari na ci réew mi daanaka doo toog ayu bés wala semaine lu dul dinañ la tuddal ne diwkat faat nañ ko ci faatin yoo xamante ni yu mënoon a ñàkk la waaye yu jéggi dayalo yoo xamante ni sax daanaka boo koy xalaat da nga naan ki koy def xanaa àndut ak sagoom waaye loolu yëpp rek day wane ni société am na fu muy doll am na fu muy toll day dem ba nit ñi seen conscience rawatina bu fekkee dañoo dem ba nga xamante ni seen côté animal ndax nit ku ne ba nga juddoo da nga am ñaari côté da nga am côté animal boo xamante ni buñ ci liggéeyul toppatoo ci nit ki war koo yar war koo jàngal loolu bu bu bu melee ni mu war a mel dafay dem ba dominer côté animalam ba nga xamante ni nit ki jukkoom bu bon kenn du ko jot waaye bu fekkee société boo xamante ni ndaw ñi yaruñu leen nit ñi jàngaluñu leen ah amuñu éducation de base amuñu l'islam boo xamante ni dëgër na ci ñoom côté animal bi day dem ba dafay mujj daal di dominer te loolu bu dominer mooy waral yi ngay gis dérapage dérapage yi ngay gis wër di reyee te loolu wax dëgg yàlla jaaduwul te affaire de rey yàlla réglé woon na ko dès le nee na non walakum fil qisaasi xayaatun même am na pays yoo xamante ni duñ ay musulman waaye foofu peine de mort ma nga fa ku rey dañ lay rey loolu mooy solution bi gën a gaaw ku rey dañu lay rey gis nga buñ ko fi appliqué woon benn ñaar maa la ko wax léegi nit ñi bàyyi rey gi waaye bu fekkee buñ la reyee bu ñu defee enquête bi ba jàpp la ñu ne non tëj nañ ko vingt ans wala trent ans loolu du fi génn rey man ne nit ñi fi mu ne ñëpp ñu ngi ci danger kenn amatul sécurité. ndax ay ñàkk fayda day gis ñoo xamante ni daanaka bu la waxoon li tax mu rey nit ki moom mi ko def day pare di regretter parce que nit ñi dañuy gaaw a réagir te loolu baaxul chariatul islamiya regle na ko nee na daal ku rey nan la rey wa katabna aleykum fiha anna nafsa bi nafsi ku rey nit dal laa war a rey waaye bu fekkee dañuy toog naan non euh, Sénégal d'accord pays musulman la waaye wax dëgg yàlla ñun dañoo nekk ci pays boo xamante ni pays laïque pays laïque mooy lan layit bi kay wax dëgg yàlla bu dee dégg nañ ko mooy ñi fi nekk tey jullit war nañoo mën a am droit pratique seen religion ni mu waree du yàq dara ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi fii te nekkuñu ay ay ay jullit ñoom it seen i seen yoon wala seen i droit wala seen i loi ak fu ñu mën a tënku ñooñu ñu ñu basé woog ñoom ci ci lu ñu tënku waaye ñii jullit ñu ñu fexe àttee woog ñoom li nga xamante ne islaam islamiya loolu la loolu la digal loolu daal ko deful yaakaar naa rey gi moom à chaque fois saa yu ñu xëyee dinañ dégg ay bàkkan te loolu wax dëgg fa yàlla jaaduwul ñaanal leen jàmm te di ko saaku si yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.